ngeen jëf mbokk ñi sivor ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaan mi di Sénégal yàlla na fi suñu borom dolli jàmm di ñaanal ñi tëdd ci loolu hôpital yàlla na leen yàlla yëkkati di ñaanal ñi nga xam ne yàlla da leen jël coobaram yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen te xaar leen àjjana waaye di ñaanal ñi ne ci prison yi yàlla na leen yàlla may liberté ba ñu delluwaat ci seen njaboot euh, waaye di ñëw ci journée bi nga xamante ni moo amoon ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé mu nekkoon combat bu neex franchement damay wax ni Euh, man keroog wax dëgg yàlla bi open press amaa Baldé bi jàllee ak Modou bi dama ne man su fi yemoon sax mu neex ndax tey dekkil nañ làmb tey làmb franchement wax dëgg yàlla li ñu war mooy delloowaat njukkal décorer ñaari mbër yi parce que dekkil nañ làmb indiwaat nañ aada indiwaat nañ cosaan indiwaat nañ salaan si làmb làmb tàkkusaan ju mel ni yi ko jot na fi am di féliciter ki nga xamante ni moo di Modou Lo waaye di encourager ki nga xamante ni moo di amaa Baldé wax dëgg yàlla sàng bi mu ñëwee këram sama yaram dafa daw xale yi di ko yuuxu Ama yee yee Ama doyaluñu Ama doyaluñu li yëngaluñu waaye boo demee parcelle tamit noonu lañ teeroo Modou Lo donc ñaari xale la woon yoo xam ne dañu uti vraiment kenn ñëwul ci géew bu ñu jëpp la en tout cas li ci war rek ñoom ñaar ñëpp def nañ ko remplir nañ seen contrat waaye nag ma toog a koo xam ne mën naa ni euh, combat bi bari woon na ci coow trop mu di Serigne Mor combat bi ba mu taxawee la njëkkoon a wax combat bi du am yàlla dogal loolu am ñu ñëwaat mu ni Modou mooy daan. ah ba sànq ci ngoon bi ñu mujjee déggante mu jàpp fi mu jàpp fas yéene si xam-xam ci waxtaanu làmb sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay mbër ginnaaw ba ma sant yàlla ju seen TV sant suma ñaari waajur sant suma yaakaar àdduna ak alaaxira mi sëñ Babacar Si di ñaan yàlla yàlla yokk leeram tatu si barkeem di nuyu waa Sénégal ñëpp di bal àq ñëpp di bal àq ñëpp di nuyu surtout waa Parcelles Assainies 1 ba 26. ci quartier Unité set fi ma juddoo màggee fa yoroo fa du nuyu waa Malika gépp surtout waa quartier Baraba ba leen ziar baax a baax. Mm-hmm. am na solo sëñ bi ma ñëw ci préparation combat bi combat bi euh, nan ngeen ko doon waajee parce que combat bi gis ñu la nga affiché wu ci bu baax a baax a baax nan ngeen doon waajee komba bi. waaw combat bi waaj nañ ko comme ni doon waajee combat ñu waajal na ñu ko raw ndax lam la ñu jox te ñu dafa bëri woon lu si laxasu bëri woon détails yi nekk ku ne di xëcc jëmale sa boor ñu am yaakaar nag bu baax a baax ñun tam kenn ko jox lu yàlla suñu borom tey ñaari doom Sénégal ñoon bëri muy Modou ak Ama Baldé Ama Baldé def na lépp li mu waroon def te yàlla suñu borom moo ko xañ te ku ko mënoon ci ñaanal ak lu mënoon seex lu mënoon génne tey doom ndam parce que tey loolu yàlla namm si moom ñu koy ñaan soo amatee benn combat yàlla na ko yàlla may ndam bu seetu guy di félicité Modou Lo nag bu baax di wax suñu xol sedd na wane na ngor wane ngarmi wane jàmbaar te si feer di Modou Lo. d'accord sëñ bi bi muy doog a taxaw. nga ne woon combat bi du am. Mhm. Euh, moment yooyu fan nga ko tegoon. combat bi jàllaat. Mhm. nga taxaw ne Modou Lo day daan. Mhm. ci ci lan nga ko tegoon. waaw combat bi taxaw na ñu ñëw jël si ma ma ne làmb mu la Ama Baldé kenn du ko bëri ma dégg façon wax bu ne yàlla dogal na kenn bëri ko si at boobu ma waxoon ñu ñëw tey ba 2023 la ñu koy soog ma taxawal arène nationale ne leen Ama Baldé jot façon menace bu ne ma dégg ko si àdduna yàlla suñu borom moo ko yàlla suñu borom mooy xool lu ko soob ak lu ko neex mu def ko si ko neex man chaque jour ma ko damaa fort mentalement déstabiliser ma yomb te damaa dëgër bopp su ma xasee ba mat benn mbir fii ak dagul du te coole mën naa bari chaque jour ma ko mais damaa mën làmm barke salaatul faatee damaa mën xëccoo 313 aju course laa doon liggéey chaque jour si combat bi 313 aju course sa guddi. sa guddi. 313 aju course laa la wax. ma doon liggéey si combat bii nii boole ak Saatu Faal ak Jurul Kamaan combat bi ku ko xool xam ne combat baatin la. Mhm. ku ko xool d'accord euh, euh, sëñ bi ma ñëw ci open press u ñaari mbëri keroog Ama Baldé bi mu defee open press moment yi nga ko gisee mu ni man parce que tey dama bëgg ñu waxtaan waxtaanu amateur ba pare bala maa ñëw ci wàllu ñaan ci wàllu mm. baatin. Mm. Ama Baldé ni man Modou Lo su ma ko teeloon a gis ak état de forme bi kon du ma ci daj yenn coono yi. moment yooyu noonu mu ko waxee lan nga jàpp moo taxoon wax loolu xeeb Modou Lo wala. waaw xam ne mbër la rek te ku nekk sa stratégie ku nekk li ngay teg pour mën a déstabiliser yooyu wax mbër rek rek doxoon wax amaana pour déstabiliser déstabiliser Modou Lo waaye Modou Lo tamit dafa déstabiliser ndax dafa fort mentalement am staff nag bu mag bu baax bu ne si am di ko accompagner doon ko pousser pour vers la victoire mais ku xool ëpp na pexe Ama xam ne Ama liggéey na wàcc ak ay mboxam ëpp na pexe Modou xam ne Modou Lo liggéey na. wàññi ak ay mbokkam. d' accord bi mu bi mu ñëwee open press ba keroog indi état de forme boo xamante ni bi ma ko gisee dama ni Modou mii mënta yëngal Ama. Mm-hmm. ci côté loo leen préparé combat bi ci côté côté côté côté physique côté xeex parce que gis nañ Modou ba ci géew mu ngi door ay une deux trois combat mu mel ni Modou daf ci pare woon uniquement pour xeex pas jàppante bi. waaw combat bi dëgg la man man personnellement ba mu taxee depuis 2019 ba tey. c'est la première fois mu loo bëre combat bi gën a jël sama xel ñu combat bii nii. ko dégguma de. depuis 2019 ba combat bi doxee ba tey ma xamoon Modou Lo mu takk ñoom ngi soog a bëre combat bu gën a dal sama xel muy combat tey bii nii. ci lan. parce que man wóoroon na lu mën di xew. arbitre bi loxo Modou Lo la yëkkati. gis bi. mais état de forme bi mu indi mu dafa tuuti ci combat bi. waaw xëy na moom tey vivacité la soxla woon. te gis nañ ba arbitre sifflé Ama gëdd ko Modou Lô ba mu riposté Ama mu arrière te Ama daawul arrière rek mbër kon xëy moom te loolu mu doon tax mu wàññi poids am na ko tey si bis bi ndax am na fu mu feeñee te boo xoolee ban àndee rëpp da ko gën a oyof moo tax mu jug Ama diis moo tax mu des fa waaw. donc kon Modou ci conseil la demee wàññi poids am pour mën a tenir combat bi. waaw Modou ay kilifa ñu ne si ginnaawam staff bu am doole. nga baal ma sax ndax si open press bi bëri na ay nit ma woo ni ma gis ñu ne si open press bi te tamit sama téléphone doon xar gis ñu ne si combat bi ku xamoon ni may doxee ak combat bi tension bi si amoon xam ne mun moo ñëw open press ba mënu moo ñëw te si làmb ji kenn piwu ma nag bu ma ne xotee may ànd ak Modou wàcc su ma nee open press ba damay wàcc ànd ak Modou Lo mais comme que damaa wax donc coow bari ak jamono yi bis yu ma jógee tool ni kur sama famille ñëpp nag ku ma wax nga may wax ngir yàlla rasul bu dem esat te ma bañ dem esat ak ma yëpp benn la ndax li ma war a jëflante ak moom jëflante naa ko moom li mu ko war ko ko li ñu war a liggéey liggéey nañ ko ba yàlla sutal ñu may leen ndam sant yàlla bu baax. préparation combat bi ci wàllu ñaam ndax yomboon na. yomboon na. ci wàllu ñaam. Mhm. jafewul ku ma mulu Ama Baldé bi jafewul woon xëy na nit ñi ñoo ko tegoon fenn rek benn dimension si wàllu ñaan. sëriñ si ku génn wax ay billaay jaful woon parce que ñaari mbir yu bokkul la zulmaani ak baatin ñu doon jëflante maanaam Ama Baldé combat bi lu mu si tuur si deret dafa bari lu si liggéey si wàllu sacrifice dafa bari te mu loolu ñu ko doon ñaanal tey ñu ëpp tur yàlla lañ yoroon lu si ëpp course lañ yoroon ku xool bis bi tey ñu mu demee xam ne caaxaan ñu bis bee ñoom moo tax ñaan si ne lu yomb tëdduma benn yoon te damaa yow sama waa ko ñëpp toog ma neen Ama Baldé moo ko daan ci garab la lay daanoo da koy wër noonu. parce que man dégg naa dégg naa rumeur boobu sànq am ku ma ko wax ma ne ko non man loolu mun ma ko gëm ba làmb jeex bi làmb ji jeexee ma toogaat fii am ku la woo téléphone devant moi di ko waxaat combat bi da nga ko gisoon avant ba teg ni ci quatre appuis lay nekk te dañ koy wër ndomba voilà. wax naa ko Papis tey vers midi. dégg naa président bi ko démb si guddi wax naa ko ne ko Ama Baldé Modou Lô da koy wër noonu mu def ko appui balaa muy loolu nag lu mu suñu borom la. ah gisoon nga ko avant. gisoon naa ko avant moo tax am na benn instant Ama ba mu feccee ba ne mu tey sama ginnaaw du suuf man ne wax na dëgg ginnaaw bi du suuf waaye kat appelé daanoo loolu moom falaa bu dee moom tey Ama mënoon am ndam moom waaw ah, waaju na bis bi trop bëggoon na bis bi trop nag. ndax li si lax woon dafa bari comme tey man ndam nag kenn du ko joxe yàlla ko joxe mais Ama Baldé tey su daan Modou Lô man dootuma mi <laughs> waaw ma si communiqué daa bari maa sëriñ bu njëkk wax fii senegal si Modou Lô Ama Baldé barki salaatul faatee maa sëriñ bi njëkk taxaw ne ko ma Modou Lô Ama Baldé du am nan demaat topp archive si ginnaaw ñu xool xëy tey la neex ku ne di wax man maa sëriñ bi njëkk taxaw kenn ñëwul wax ñeen Modou Lo day daan Ama Baldé loolu bu ñu toppee archive man tax ba mu ko wax loolu mën na 7 mois 8 mois si ginnaaw te nag suñu demee ba mi ngi dogal di may yor dogal yi dogal loolu ñu def lu sant suñu borom ndax moo naa demee neneen nag tey. d'accord ma ñëw ci biir géew bi ñu gis tey kombaa bi moodu dafa indi loo xam ne jaaxal na ñépp euh, Modou ñëw tey takkul dara gàllaa ji bëriwul ci biir géew bi lu waral loolu. waaw xam ne wax nit nag boo nekkee si benn métier def si 20 ans 21 ans te amoo expérience nga bàyyi ko mu seet leneen mu loo def si islam léegi 21 ans wala 22 ans mu nekk si lam bëri si façon bis bu ne gars yi bu ñu ne lam mu moo fi njëkk indi valise valise bu galaat si lam mu loo moo ñëw ci biir géew. bu ñu fàttali ne mu loo moo njëkk bëri combat jeex muy wër ay téeréem bu ñu fàttali ne mu loo moo fi njëkk takk takkaayu rafet ba mbëri ji kuy ku dem seen ñu ko jox ma ay téere ma takk. contexte su demee nag ba sentir li mu def noonu wartu ko def te nag xar day weesu mboote Modou Lo dépassé na loolu c'est le roi des arènes mooy buur la am tey te Modou Lo kilifa la am na ñu koy ñaan ñoo xam ne wóolu na si baatin am ko gëmloo moom gëm na loolu doy na ñandu takk aar la sangu musaaya takk aar la sangu pour musaaya pour bëtu lay xool amul benn sangu bu la may ndam amul pour bëtu lay xool rek ndax nit dafa doy waar loolu kese la waaye liy daan dëgg mooy sëriñ bi toog si der di zëkkatu yàlla. ñu bari ni woon Modou Lo dañ ko jàpp ci galaaj parce que tey Modou Lo ñaare boo xoolee bu sangoowee euh, biteel rek day wow automatiquement. Modou du mbër bu ñuy jàpp si galaaj am na benn promoteur bu ma woo ko waxtal si yàlla ni ko Ama Baldé ma damay dégg ne Modou Lo ko jàpp man ko Modou Lo kenn ak 4 mois am na lu sax du ma ko wax. mbindeef buy dox si ko su mu ko jàpp si galaaj ndax bidéew fu mu nekk la. te roi bi ñii ñu foog nii roi bi mu doon ñu bàyyi ko xale mu ne ko bàyyi walee làmb de. Modou mën na ko. bàyyi walee làmb. roi bi waaw man nag mu wax dëgg yàlla personnellement maa ngi suñu mission moom jeex na. Modou waaw ah, desatuma dara mu defal na ma lépp ci sport te su ma demee ba xërs lam c'est grâce à Modou Xarañ Lo suñu demee ba parce que ñëpp naan sëñ moo sëñ moo c'est grâce à Modou Lo. bu ne parce que rafle am roi des arènes mu dugal ñu roi des arènes c'est grâce à kan Modou Lo mhm. bis bu ne bu ñu soxla bu ne indi na ndam lu ne ñu koy ñaanal bu baax yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér lu mu bëgg si carrière am yépp yàlla defal ko sàmm ko sàmm njabootam mu konne ak bote ak njabootam kon bàyyi nga ñaanal Modou du mu mu ma ko mais man personnellement wàccu nag man barke salaatu fàtte li ma gën a bëgg na ma ko bis su ma gën a soxla yëpp Modou Lo jox na ma ko la mos des xar da weesu bote d' accord sëñ bi ma ñëw ci biir géew bi avant arbitre di siffler ñu gisu ay coow bi Ama jëlee couronne bi teg ko ci bopp bi coow am fa ba Modou am kum fa kum fa dóor. Mhm. coow loolu noonu ci biir combat bi. waaw parce que kooku moo moo tooñ. Hmm? que daa am lu mu sànni Modou Lo. waaw ah, dafa am lu mu ko sànni. daa am ko sànni boo xoolee image dañ ko gis du Ama moo ko sànni mais Modou moo ko sànni. benn affaire bu ndaw mu sànni ko ko mu dal koy door yooyu mën naa ñàkk pour man soo wóolu li nga yor wóolu sa mbër doo tooñ doo saboté waaye encore une fois ñu ngi encouragé Ama Baldé bu baax moom ak staff am yëpp surtout Pape koy marsaw bu baax a baax ndax nit ku baax la nit ku bëgg ko xam la te tey bu doon moo yor ndam a Baldé du ñàkk ndam li barke alxuraan maa ngi koy marsaw di ko félicité di ko ñaanal yàlla moom Ama Baldé si moom tamit maa ngi koy ñaan combat bu mu amati yàlla na ko yàlla may ndam parce que nag franchement lu waaye mënti xam ne amaat nit ku yaru la parce que ba combat bi taxaw kenn déggul mu wax wax bu ñaaw kenn déggul mu wax wax bu dépassé ku xool tey balaa mu jeexee ba yëkkati loxo Moodu moom moo ubbi ay loxoom ñu fekk Moodu ñu te man personnellement dinaa jël sama téléphone woo Ama dinaa taal sama oto bu ñëpp passé dem fekk Ama fu mu nekk ma seet ko ziar ko te su amatee combat dinaa ko ñaan Mm-hmm. Ama gëdd ko Modou arrière. Mm-hmm. waaw tubaab moo ne il faut reculer. pour mieux sauter ba mu reculer lu amaat dafa riposté parce que su fekkoon Ama dafa ko gëdd mu taxaw rek booba Ama day mu bëgg mais boo xoolee Ama ne dafa teg benn pas ñaari pas dóor ko ay ko ba mu ko songee Modou sax xaw naa surux waaye dalay wóor macha allah am kattan moo tax daal tiwaat si ngeen rek jug ba mu jugee Ama jox wet gi dóor ko mbot. mu loo rajeeku bàyyi ko mu surux mu jóg kay épercule même bu booy bu ñuul woon Ama def na kat appi. Ama def na kat appi. waaw def na kat appi te même bu booy bu ñuul woon tamit Ama moo da ko dóor bu mu tëdd rek tëdd boppam parce que foofu amul benn sens pour jug su ñu wax dëgg parce que Ama poids lourd la dafa diis soo xoolee image boobu moo ñaar contre Eumeu Sène Balla Gaye. Mhm. d'accord euh, bi Ama dawee jël ko Modou déclenché ko mbot Ama déclenché ko mbot Modou wër ko ndomba. moment yooyu ndax combat bi par rapport ak ni ngeen ko doon waajee wàllu ñaan toogoon ci lu wóor ndax tey victoire bi ngeen ju séntu woon. waa ñun xamoon na ni gàtt gàtt wër na mu day am si làmb ji xam na ne Ama Baldé day Modou dina ko wër nomm xam nañ dina def kat appi yooyu yëpp seet nañ ko wala comme mosu ñoo betti démb ku xam ñi ma nekkal fii kër gi sama waa kër fii guddi gi damay tëb rek jékki-jékki jug yëngale bu mu yëngu ñeen suba bu heure bii ñu xam lépp dëgg la ñii ñii di ma dégg waa kër gi ñëpp toog di ataaya damay jug ñu leen billaay walaay bu soo ñu xam lépp dëgg la démb ku xool sama estati àdduna bi yëpp gis nañ ko 23 heures laa def estati ñëpp nga koy gis ma leen suba billaay walaay watalee Ama Baldé day daanu am ñu moo ñu ma sëñ bi supprimer sa estati yi parce que ama daa cee ndam ma leen ba suba man dama am gëm-gëm man li may wax rek ma taalibe Cheikh Tidiane la aw ma lu may tiiw lu may ragal damaa yóbbu saa tuuti fan yooyu ma xëccoo ci te li ma waxoon làmm li ma si def ni du dara commencé gu sax mais day am après yi tax damay am tànk ginnaaw parce que dootuma am jotom waaw. d'accord tey boo mënoon euh, analyser Ama Baldé lan nga jàpp ne moo tax mu ñàkk combat bi parce que Ama gis nañu combat bi dafa ñeme Modou Lô dafa ñeme Modou Lô du trop moo tax mu ñàkk combat. waaw si sama xarit bopp jàpp naa ne excès de am na si jàpp naa tamit jàpp nañu fu mu téye Modou Lô làmb jeex. ba pare ay maanaam dig ko tey lu mu dexee doo ñax bis li dal Ama Baldé daloon na Modou Lô hmm. muy bëre Bombardier àdduna bi yëpp dañ ko da daan Bombardier suba teel moo tukkoon bis boobu dem na ba Modou Lô moo rempli benn sombi pour ñu mën a sauver bi ba mu demee daanuwul te loolu rek moo dal Ama Baldé ñaankat yëpp dañu ko dangay am ndam moom yaakaar ñëw def lu war a def yëpp daanu Ama xale la doy defarwaat dëgg la loolu moo xam dañu ko créé pour mu nekk roi des la dañu ko créé pour mu nekk roi des arènes te dina nekk roi des arènes mhm. euh, xam naa nag fi may jeexalee mënta ñàkk suñ moor euh, keroog am benn combat boo xam nga baal ma baal ma ma félicité tam sama benn mbër ndaxte ñaari mbir amoon. Ziza Ziza moo may woon yi sax. Mhm. maa ngi koy ziar bu baax moom it. Mhm. di ko wax kontaan naa si bu baax a baax. d'accord sëñ bi ñu bari nii sëñ Mor combat bi li tax affiché wu ci benn yoon parce que keroog Petit Lo bi mu bëri ak Jackson da nga waxoon ni Jackson. Euh, mooy daan Petit Lo. yàlla euh, àndul ak yow ci bés boobu noonu. mu jur coow lu bari ñu bari ni sëñ moor fi mu toll nii daanaka. Euh, dafa commencé dafa commencé fay. boo xoolee combat bi daal. Sa Touba rek lañ ci gis muy affiché wu di dama ko ñëw ñu bari ni sëñ moor combat bi ñeme wu cee génn di wax parce que ah, la woon woon na. man li ma wax si Modou Lo amul wax. ku toog 3 ans 4 ans man damaa communiqué si Modou Lo ba nit ñi xam li ma wax si Modou te audio yi fi lépp a ngi fi damaa communiqué si Modou ba ànd yi gépp xam damaa communiqué si Modou Lo man xanaa ñi dañuy fàtte yàgg naa leen wax man du ma dëmm du ma jinne doomu adama képp laa ni may yóbbu ay mbër yu daan bis ne ñoo ma yóbbu ma daan ko man maa ngemb Jackson dem esaan nag dem këram defal ko lépp lu ma war mu dem mu daanu tax du daanu tax du ma ngemb daan ko man maay kan loolu sax ma ko sama émission nit ñi bu ñu xam combat Modou Lo bii tey naa la su ma neexoon man damay dem kër Modou Lo taal sama oto yóbbu ko esaat njibisiwaat waaye man maa bëgg lool tey man maa bëgg lool si bis parce que tamit am na tamit sama sécurité bopp tamit parce tey bis bi fu mu tolloon ñëpp xam nañ ko mais bu ma neexoon ànd ak Modou Lo bu ma neexoon dem si ëppati presse bi loolu du dara saa Touba tey rôle na def defal ñu suñu rôle ñëpp parce que tey def lépp lépp lu waroon def na ko liggéey après yàlla moo joxe ndam sant nañ bu baax a baax waaw sant bu baax dam na kontaan naa bu baax a baax a baax. victoire bëggoon nga ko nii. bu baax tey victoire nu ñu ko amee baax na nañu ko Modou Lo rek victoire tey bii Modou Lo nu ñu ko amee la 5 bi nu ñu ko Modou amee baax na nañu yëkkati loxo Modou te yàlla dogal na ni mi mën si kàttanam tey ak loxo Modou Lo sant nañu yàlla bu baax a baax a baax. xool tey ni ma def xam nga. waaw tey tey ah, roi des arènes <laughs> ah. xool seet da waay waaye na ma neex alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi daa mel ne ngaa nekkoon ci parce que sànq ñëw naa nga ma guy gi ama bu daanoon Modou moom xam naa ne suba suba boo ñëwee ci kër gi ñu la sëñ bi dagg nay bagage waaw da tiitoon wala pression la woon man nag yàlla dogal li ma lay wax man taalibe Cheikh du ma tiit man su may dem si bis day fekk ma peeg bis bi ba xam ne may fekk naa leen ak coole mën naa bari mais ñoom gisaguñ ma mukk ma wàcc ci terrain ngëm mbër sol sama jàllabe bu xonq boobu teg sama sër rabal bi ñu daan ma ne ma gisuguñ ko de mhm. am jét mhm. cool muy bari bari yëpp laa la gisuguñ ma man ma wàcc sol sama jàllabe bu xonq boobu sama rabal bi ñu daan ma gisaguñ ko mhm. te duñ ko gaaw gis mais combat bi da nga ci amoon pression parce que boo demee ba ni Ama bu daanee Modou ma gàddaay kon da nga ci amoon tey su ko daanee parce que liñ si communiqué la ak liñ si wax kon li ñu waroon mooy tax ñu toog suñu ruq lalu liggéey si liñ kilifa yu mag tamit ñaan Modou Lo loolu tamit il faut ñuy bañ ji fàtte mais kilifa yu mag tamit yoo xam ne ñoo toog seen ruq ñaan Modou Lo te war rek tax te Modou Lo tey ñu ko ñëwee woon ndam dafa bari tey ba ma demee parcelle sama xol daa seet suba gi parcelle fees dell léegi fa laa jógee macha allah mu daal def nañu lépp def nañu lépp dëgg yàlla sat naa na sama góor gi bu baax borom bonekaar bi borom sàqar yàlla bi mhm. borom manto bi mhm. kon daan naa sëñ bi ci dalal la vraiment di la di la di li may wax rek di félicité waat Modou. Mhm. waaye di encouragé waat ki nga xamante ne tamit moo di Ama. Mhm. vraiment waa Pikine combat bi sonn nañu trop. Mhm. ci mel ni awa Ama sonn na ci sànq gis naa ko muy jooy. ñam Paate Balde. vraiment ñëpp sonn ci combat bi. waaye boo demee parcelle. keroog ñëw naa fa petit loo. combat bi daal wax dëgg yàlla. gàcce ngalaam ñaari mbër yi. sagal nañ làmb ñaari mbër yi sigil nañ la sa mot de la fin ma nuy nuyu nag. sama sama champion boo fekk fii Boy Malika. waaw ah, sama mot de la fin di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di mhm. nuyu met Boy Malika.

sant suma staff bi yëpp nag suma staff bi yëpp maa leen sant. suba nga am staff. waaw am staff bu yaatu billahi wallahi wa taala <laughs> ku si mel ni comme Alsane ku si mel ni comme Cheikh Tidiane ku si mel ni comme maam Abdou Dib France ku si mel ni comme maam Thierno Cheikh Sall man sa staff dafa yaatu ñoo xam dañ may bu gisee benn interview bu ma def bu jeexee dañ may woo ni waroon wax li waroon wax lii kon loolu jar na sant yàlla. Mm-hmm. xam nga Sénégal ñëpp ma bëgg àdduna na sax laay wax ñëpp ma bëgg surtout Modou Modou yi mm-hmm. dañ may woo guddeeg bëccëg suba ngoon. barke alxuraan karim maa ngi sant ñëpp te bis bi ñëpp tam ñu mos doon di sant tamit waa parcelle encore une fois tey bu ma fa demee dafa mel ni man maay Modou Lo ñëpp daw ñëw xam nga loolu kenn xamul la nga daal maa ngi sant nag bu baax a baax sant waa parcelle yëpp 1 ba 26 di sant surtout quartier déggoo intercept man déggoo laa tiitaroo lu ma am déggoo laa ko amee suma yaay bu baax a baax di sant suma yaakaar àddina ak alaaxira muy sëñ Babacar Si di wax Modou Lo jërëjëf kontaan naa jërë ngeen jëf mhm. jàmm si yow mhm. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen àndoon na ngeen duñu suivre di leen jaajëfal di leen jox yeneen di daje ci suñu yeneen émission VG People 221 jërë ngeen jëf